mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen rubrique kanla la aljuma bu jot tey dañuy waxtaane ki jiite conseil économique social et environnemental Idrissa Seck mu ngi juddu juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 1959 ca Thiès idi juróom benn at la amoon na ba muy dala daara ngir jàng alxuraan gannaaw bi doomu Thiès bi dal école française defee primaire ca école Randoulène Sud 2 ci boobee diwaan laata muy dem ca collège Saint Gabriel atum 1981 la am baccalauréat ginnaaw bi doomu tees bi tàbbi ci njàngum science politique ci atum 1983 la ñu jàpp ne am na njëriñ bu baax ci carrière am politique ñaari fukk at ak juróom-ñeent la am moom ndaw li gëm boppam lool teg ci dëggal ko tax Abdoulaye Wade def ko directeur campagne am ci atum 1988 mu sooke ay mbir yu bari bokk na ci li ñuy woowee marche bleue ngir tàbb Abdoulaye Wade ci bopp réew mi fukk ak juróom fan ci weeru mars ci atum 2000 mu nekk directeur cabinet wam laata muy doon njiitu jëwriñ yi ci weeru avril 2000 moom daamal Kajoor am carrière politique bu am solo waaye lu ñuy wax rek kenn xamul luy xew ëllëg kan moo yaakaaroon ne Idrissa Seck dana dem ba jiite conseil économique sociale environnemental kor goo xam ne da koo naroon tas bu faloo njiitu réew bëgg-bëgg googu mu am ngir doon njiitu réew senegal ndax doonu lu naax saay muy laaj bu sénégalais yu bëri amagul tontu Idrissa Seck homme d'état la di doomu réew mi jamono ji ay atam toll ci juróom benn fukk ak benn jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci déglu bi te it di leen di jox dig daje ba aljuma bii di ñëw